ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor les minutes de l'info. salaamaaleykum mbokk internet dakarnet.com comme ni ñu koy defee saa su nekk euh, di wër ndaanaan yi ak artistes yi nekk fii euh, Sénégal euh, te dañu am mbégte ak contentement di dalal Charles Lopez gars yi xàmme ngeen ko ci série série yu bari fii daw fii Sénégal yi yoo xam ne gën na siiw fii ci Marodi moom nag acteur de film la. Euh, journaliste la ba pare nekk éducateur te moom lañuy dalal luñ euh, sori dañ koy jox kàddu yi ndoog mbokk internet wu dakarnet point com après ñu dikk moom ci waxtaan Charles Lopez ñu leen di di ziar. merci ñi ngi nuyu waa dakarnet point comme yëpp internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre euh, di rafetlu également seen invitation di en, en disant également que je suis vraiment à à répondre à toutes vos questions. Euh, d' accord mi ngi noonu kooku mooy Charles Lopez te dañu am mbégte di dal ak moom di waxtaan ak moom euh, bu ñu gisee que ni yi ngi ne moom ngay occupé yëpp lu ci mel ni journaliste euh, comme éducateur yooyu na nga ko mën a boole ak liggéey bi parce que tournage dafa métti ak série yi nga bokk yëpp ndax nga koy liggéeyee ak ak mooy ba mu jaar yoon te benn du am. faay waaw waaw j'avoue que métier yi ma boole yëpp métti na mm-hmm. mais ce sont des des métiers qui vont de pair. Euh, boo nekkee enseignant éducateur mm-hmm. euh, nekk journaliste mm-hmm. nekk en même temps un acteur de cinéma mm-hmm. bon damay wax ni ay métiers yu mën a ànd la maintenant nu ñu koy boolee c'est facile parce que dama koy faral di wax que la vie c'est seen planification sama métier dëgg-dëgg c'est c'est l'enseignement en tant que qu'éducateur fii ma toog nii sama bureau su ma xëyee huit heures maa ngi su ma wàccee seize heures dix-sept heures su ma amee un programme affaire faire à la rajo dama fay dem les week-ends je à la rajo. Mhm. su ma amee tournage aussi damay planifier de telle sorte que mbir yi duñ duggante. bu ci nekk dinaa ko def nu mu war a nu ma ko war a defee te mhm. vraiment du am incident euh, ci beneen bi sauf que. Mhm. Euh, li ci li ci metti trop moom mooy euh, vie de famille nag nga dul am. Ah, d'accord da dul am vie de famille. da ngay da ngay jóge ci lii dem ci lii jóge ci lii dem ci lii. finalement sa propre temps sax doo ko am. doo ko am voilà dëgg la mi ngi noonu euh, duñ def ak lu dul euh, ci waxtaan bi euh, Charles gis nañ ma maman Virginie ni ngeen koy géwee mu neex mais dañuy gis xale yi souvent koo ñëw rek ne ko pour interview mun na noonoo non du ma ko def parce que sama ménagère di sama mère pourquoi yéenay bañ xale yi génn wala. waaw du question bañ ñu génn sax parce que moomuñu leen. Mm-hmm. mais am nañ benn mainmise ci ñoom ci wàllu encadrement ak conseil. Mm-hmm. Euh, un jeune buy embrasser le métier du cinéma. Mm-hmm. nekk acteur ou actrice ba ñëpp xam la. nga nekk xale surtout film bi nga wax di Virginie. yu ci bëri ay xale lañ. alors euh, bu fekkente ni euh, la presse nationale. que ce soit presse en ligne que ce soit presse écrite que ce soit audiovisuelle. bu ñu leen di woo di leen defal ay ITV mën nañu dérailler parce que être acteur ne veut pas dire que ni da nga war a maîtriser la communication. Mm-hmm. être acteur ou actrice ne veut pas dire que ni ci dois être apte à bien communiquer par rapport ak yow sa vie professionnelle am na ñoo xam ni pareeguñu. Mm-hmm. pour vraiment communiquer ci seen vie professionnel ak li ñuy def. Mm-hmm. loolu moo tax. Euh, ñu am beneen constat boo xam ne aussi def nañ ko. Mhm. surtout les les la presse en ligne. Mhm. nga xam ne léegi euh, dama koy wax. parce mhm. que ñoo gën a sax bëri léegi télé yeeg rajo yi. alors que dafa rëcc état ci benn fànn parce que l' état n'a pas un contrôle euh, ci média en ligne yi ba tax. da ngay accordel benn journaliste interview. wax pendant tamit nekkul ne ak nekkul journaliste yëpp tamit. waaw mais du ñëpp c'est vrai. Uh-huh. du ñëpp. Mm-hmm. mais xam nga mbir moo xamante ni du ñëpp. mais buñ ñee mm-hmm. ñi ci ëpp loolu la ñuy def da ngay mm-hmm. xaw a ragal. dëgg la waaw c'est vrai que chaque règle a des exceptions. alors un journaliste bi da lay jël dafa yow interview deux heures de temps. mais mais yow deux heures temps yi ngay wax yëpp. da ci cof benn wax bu négatif. exploité ko. te loolu mën na am euh, des répercussions sur sa carrière mhm. ci sa vie professionnelle mhm. donc moo tax comme ay xale lañ mhm. te ñoraguñ bu baax dañuy door a door di leen defal ay interview risque la pour ñoom ci seen ci seen vie professionnelle ci seen carrière oh. man man ñun noonu lañ ko jàppee du question ne dañ leen wax bu leen def mais ce sont des conseils qu'on leur donne et que buñ ko suivre aussi duñu gaaw a génn di def ay ITV Mm-hmm. Euh, di def ay interview par ci ci yenn médias yi. Mm-hmm. mais comme yéen da ngeen ne ah, da ngeen dajal ay xale di leen former kon yaakaar naa ne tamit bu ci communication bi tamit war ngeen mën a former ba ñoom fu ñu génn bu ñu taxee dëkk leen micro leen ñu wax. oui waaw te ba tey autant que ñuy wax loo xam ne tey jii nii ah, dana nekk loo xam ne day négatif ba ba ba gars di ci bind. oui mais chaque chose à son temps. Mm-hmm. moment bi euh, dañu nekk ci formation ci plateau bi ci jeu d'acteur bi ci la maîtrise des dialogues ci nan la ñuy jouer. mais mhm. egguñ ci formation sur la communication comment communiquer. Mhm. loolu xëy na dañ ci eggagul. Mhm. jotagul moo tax. mais chaque chose à son temps. loolu il faut ñu dem fa ak ñoom. parce que ñoom fi ñu nekk seen seeni morom jaar nañ fa du ma ne sax âge bi mais am na des personnes age ñoo xam ne duñu ay xale ay magum jëmm yoo xamante ni mënuñu wax. am na ñoo xam ne même mën nga leen former deux ans ci wàllu communication. mais wax ci kanamu caméra c'est pas donné à n'importe qui mhm. rawatina ci nag mu doon xale mhm. donc pour man teel na pour ñu vraiment ñuy génn loolu nag mhm. sama avis personnel la. d'accord waaw. <laughs> waaw mi ngi noonu moom nee loolu ah, avis personnel la bëggul xale yi tamit di génn ak di wax heure bi bu jotee rek dina yomb. exactement mais aussi ah, foofu la rek la ah, sukkandiku di la jaale Myriam njoor mhm. mu nekkoon ci Virginie ñëpp xamee ko mu daan def rôle bu am sens tey naka ngeen dundee perte boobu. metti perte bu metti la ci ci Marodi TV. Mm-hmm. perte bu metti la ci acteurs yi bokk ci série Virginie mm-hmm. perte bu metti la ci la culture sénégalaise et même la culture africaine mm-hmm. euh, pourquoi ma ne perte bu metti la parce que euh, kii kii connaît Myriam nekkoon na benn actrice boo xamante ni euh, amoon na toutes les qualité bi actrice waroon am bu ñëwee ci plateau da ko daan jox ak xam réalisateur yi daaw ñu sonn ci moom ci ci maîtrise de ses textes Mhm. ci dialogue am mhm. en plus de ça bu musaan mhm. ñëw plateau da nga koy gis digganteem relation moom ak xale yi dafa nekkoon relation bu bu ratax da leen daan orienté da leen daan jox ay conseils da leen daan jàppe comme ay doomam ci wàllu métier bi en plus da ku fonkoon diineem la aussi parce que ku ne xam ne ni tournage Marodi moom dafa taal xëy na sax du Marodi rek machine de production yëpp tournage ci boppam dafa metti mais Mhm. tournage lu mu metti metti bu waxtu julli jotee day bàyyi lu muy def na may leenoo ma julli donc loolu ñun luñ ko seedeel la ku mhm. jullite woon la mhm. en plus ku ubbeeku woon la euh, man personnellement musuma ko gis fu mu mere musuma ko gis mu mer musuma ko gis muy wax ci lu yoonam nekkul nit ku jullite nit ku maandute moo dem Mm-hmm. seen une grosse perte pour la culture sénégalaise parce que mm-hmm. qualité yi newoon ci moom xam naa ni bu ko yàlla mayoon muy dund ba tey Sénégal am nañu espoir ni un jour mën na gagner mm-hmm. un prix sur le plan africain un prix boo xamante naan day gën a vraiment honorer le cinéma sénégalais mais nag jaam ak pexeem yàlla ak dogalam moo ñu ko gën a soxla moo ko sàkkoon jël na ko Euh, metti na lool suñu côté nag. Mhm. mais nag mook àdduna ñoo ànd. dëgg la waaw bakkan bu ñam du da ñam dee dañuy ñun ñu ko desal rek. Mhm. mooy di ko ñaanal fa mu jëm gënal ko fi mu jógee mhm. yàlla teg loxo ci njabootam. vraiment loolu rek lañ am pour moom di ko ñaanal rek fu ñu toll. waaw d'accord mais aussi tamit perte boobu ngeen ñàkk tey jii est-ce ngeen ko am ko ko remplacer parce que maire bu comme ni nga ko waxee nu mu daan téye comme qualité am waaw du ma ne duñ ko am. Mhm. du ma ne dinañ ko am mais du yomb. du yomb mhm. waaw léeg-léeg nga am nit dund ak moom loo xam ne da nga yaakaar ni moom rek la yàlla sàkkoon ci ku mel noonu. Mhm. mais nag loo gis lu ne am na doublon dans la vie. sauf que nag pour amaat ku mel noonu. néew ma dinañ duñ ko am de mais jàpp naa ne du yomb parce que ba léegi nii. amaguñ ko te on à la recherche d'une actrice bu mel noonu. am qualité yu mel noonu. mais gisaguñ. Mhm. xëy na nag dinañ ko am mais du yomb parce que vraiment Myriam kenn la mhm. woon ci ñun. Mhm. alors mi ngi noonu nee na euh, euh, Myriam kenn woon ci ñoom di ko ñaanal suñu borom yàlla na ko yàlla xaaree àjjana euh, ci barki Seydina Muhammad mais bu buñu tiggee foofu bëgg nañ ñu laal politique bi tuuti. la politique. comme ni nga ko gisee léegi élection locale yi mi ngi ñëw te gis nañ violence yi mi ngi commencé ñëw te ndax nga ko gisee. waaw ni ma ko gisee du du du rek élection locale mm-hmm. la ñuy ko violence violence dañ ko nemmee ko à chaque fois ñuy dugg ci ay échéance électorale mm-hmm. rawat na ci bii nga xamante ni élection locale dafa am dafa am réalité boppam parce que élection gox goxaat la mm-hmm. ñëpp les jeunes ñi ngi weddi les politiciens ñu ci bëri nee nañ politiciens yi wane nañ seen preuve xam nañ ñi mënuñu dara il faut que ñeneen ñu dul politiciens maanaam ñi nekk ci société civile bi. Mhm. assurer la relève dugg. Mhm. moo tax dans toutes les communes. Mhm. foo foo foo commune boo dem ku nekk ngi jóg naan candidat la candidat la candidat la. mais le problème qui sa pose est que loolu constat boo xam dañu koy def dañu nemmeeku ne. à chaque élection bu jotee les vrais électeurs ce sont les personnes âgées. ce son les les femmes généralement les jeunes. duñ leen gis lu ci bëri. fajar ñu rang ci buntu bureau de vote yi non dañ leen di recruter comme ay nervi nervi pour des sommes maudites mhm. ay mille francs par journée ay 10 000 francs mhm. ñuy ñu ñu ñu ñu leen di xeexloo di leen sànniloo xeer di leen yuuxuloo mhm. ñu nekk ay garde corps et cetera te bu élection yi passé seeni soxla ñoom jeune bi jeunes yi ndaw ñi kenn du ci taxaw ñoom ñuy jugaat mm-hmm. di kaas naan maire bi def fi dara Masamba defu fi dara mm-hmm. te yow kooku ngay wax def fi dara mm-hmm. ba muy falu bokkoon nga ci ñi koy daan di dar di ko xeexal di ko guddil di ko bëccëgal ci lim yu yu som yu murit yi mu la daan jox alors que xamool ni yow yaa ngi sa avenir mi ngi en jeu tout le monde est électeur tout citoyen bu am carte nationale d'identité mhm. am sa carte électeur am nga baat ci réew mi mhm. Mhm. il sa ji pas de may votel diw parce que diw moo ma neex mu jël ma comme garde du corps ma nekk nervi da moo nervi sax di ko kole nit baaxul ngay xeex a ko xuloo di jamante lu la ci mën a fekk moom moom politicien bi moom lu mu faloo lay xool mais yow yaay perte say waajur ñooy perte alors que dañu am kàddu dañu war a bokk ci ñuy décider. Mhm. un jeune sa place c'est participer aux instances de décision. Mhm. et non maa ngi ci ginnaaw diw dañu arrêté man jeune maa ngi ci ginnaaw diw. Mhm. da nekk ci wetam ngeen bu ànd liggéey. mais boo nekkee ci ginnaaw diw mooy lu mu lu mu rotal nga for. loolu baaxul la jeunesse actuellement constitue la crème de la population c'est-à-dire boo jëlee population Sénégal jeunes yee ci ëpp bu ñu àndoon. Mhm. décider. Mhm. kenn du leen ëpp baat ci réew mi mais pas ñu leen di jël di leen utiliser. Mhm. sur les violences vraiment. Euh, c'est à déplorer. mais d'accord euh, comme euh, comme ni nga ko waxee dañoo bëgg a xam tey jii yow maman am sa gis-gis violence bi ci pouvoir bi la wala ci opposition ci ñëpp la. ci ñëpp hmm. la. ñëpp la mais rawatina ci. ci pouvoir bi parce que généralement ceux qui sont dans l'opposition Mm-hmm. amuñu ay moyens di fay ay nervi amuñu moyens yi ñi nekk ci mm-hmm. pouvoir ñoo ëpp ay moyens di soo xoolee li xewoon récemment à à Ziguinchor mm-hmm. avec euh, la réunion de Sonko euh, les jeunes les nervis de Doudouka ñëw mooy le DG de l'AIBD ñëw yow dafa réunion amoo activité kii am na activité am lan nga fa wuti xam nga mais bu fekkee ne amoon nga looy def participer à la promotion de la paix dans ce pays. Mhm. jar na sax boo fa amoon activité nga fomm ko. pour rek préserver euh, li nga xam ne moo moo am Casamance. Mhm. jàmm am. Mhm. mais ay ay fii ko moom sama fief la Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk. fenn du fiefu fenn. foo juddoo rek ba ngay judd am nga naan ko fekk ñu juddu. te sa xalaat ci wàllu politique mën na wuuteeg keneen ku mel na yow ku fa juddoo. te bokkul ak yow xalaat politique. Mhm. kon soo nee sama fief la kook tamit moom it sama fief la fief moo amul ñun ñoo bokk Sénégal mhm. ñoo bokk réew mi. ni nga amee droit sa fief nga def fa politique. Mhm. joxe sa xalaat sa gis-gis ci wàllu politique keneen noonu la amee droit moom it. juddu fa yaroo fa def na yow te doo leen bokk gis-gis ci wàllu politique. kon fen du feefu fenn. donc yooyu mooy indi parfois ay tension ni nga ne fii sama commune la fi laa juddoo yaroo fi mais droit ba ba nga fa am. Mhm. keneen ka fa juddoo yar fa am na fa droit. d'accord ah, euh, naka nga gisee léegi euh, théâtre démb ak théâtre tey. waaw loolu su ma su ma la ci répondre réponse bu gàtt lay doon de. Hmm. théâtre hmm. démb da doon hmm. wax li li xewoon démb. waaw théâtre tey di wax li xew tey. loolu la rek. mais pour pourquoi léegi <laughs> mais pour quoi tey jii nii ñëwoo toog sa doom tey euh, di seetaan yenn série yi. waaw te bu njëkk ba sa doom daan toog nga nga jàkkaarloo moom seetaan ak moom théâtre moom mi am euh, éducation boo xam ne yooyu yëpp ci kii bi la koy seetaane. waaw bu njëkk mu nekk bu njëkk sa doom. da nga naan toog ci biir kër gi. ah. ñemewul solu yenn colt yi di la romb. bu njëkk sa doom da nga naan toog ak moom ci biir kër gi. Mm-hmm. bala muy génn la maa ngi dem. mais léegi boo fekkente ni yaa ngi accepte sa doom. du sol yenn sol yi di la romb di génn doo ko wax dara. mu yor iPhone boo xamante ni yow boo bu la ko joxee mën nga cee sax. jënd saako ciment wala. le cinéma est un fait de société. xam nga bu ñu nee théâtre li ñu li def nii xam nga du théâtre téléfilm la. waaw té waaw téléfilm dañ ko boole ci biir cinéma. Mhm. le cinéma relate des faits de société actuellement téléfilm li ñuy def yëpp dañuy relater les faits de mhm. lan mooy fait de société mooy li xew ci société bi. mais comme ne ni ma ko gisee. lan ngay gis ci biir téléfilm loo gisul ci société bi amul loo gis gars yi joué ko. mu mhm. ngi ci biir société bi kër goo da ngay dem benn kër da nga ko fay fekk. Mhm. amul ah, mais mais su ma déggee see wax kon maanaam yow foofu noonu nga bëgg a sukkandiku quoi. waaw mooy li ma la dama ne la. Mhm. mus naa ko wax ci benn interview parfois dañ may laaj bu njëkk ay daare ko ay jamono tey lañ daan joué. mais lal xewoon jamono jooju ñoom loolu lañ daan joué. troupe yooyu troupe yooyu bu doon dañoo exister ba léegi nii. Eh? ñun li ñuy def nii kon ñoom loolu la ñuy def. ñoom mais tamit amoon na fi benn paa bu ñu déggoon ah, paa Leyti et que ni ko di sax paa Demba Fall yàlla na ko yàlla ah, xaare àjjana mooy nee na jamono jooju proposé nañ ko lu mel noonu ci ay millions moom jéewu ko. non loolu waxin la. ah mais moom toog na am toog ñu ko. seede non non xam nga weddiwuma ko. waaw mais dama ne sa dépend des rôles lan lañ ko proposé woon. est-ce que man mii loolu ku ma ko proposé woon léegi aussi man dinaa ko nangu. bala mhm. bala bala mu doon neex mu waxoon lan lañ ko proposé. mais euh, xam nga tey jii boo jëloon benn Lopez. waaw ne ko joué ma rôle góor jigéen du ma ko def. ak ak millions yoo ci mën a teg. Mhm. comprendre la d'accord ku ne xam na ni. Mhm. góor jigéen am na ci dëkk bi. am na ay homosexuels ci dëkk bi. mais est-ce que gis nga benn film bu ñuy joué benn góor jigéen ñëw. ñuy def la promotion des góor jigéen amul. mais tamit est-ce que loolu noonu tey mën na koo jël ñu xaw ko sax laay wax parce que ak góor moom kenn du ko dogal ci fii. mais ñu xaw ko comparer ak yenn film yi yoo xam ne dañuy def euh, di di summeeku di see ñëpp di teg seen bët. est-ce que mus nga gis benn film bu nit di summeeku. ah du gars yi seetaan. non non laa laaj ay film kii yeeg man mooy kii nga xam nga li ma la bëgg. non xam nga xam nga dafa am des critique yoo xamante ni euh, ce n'est pas des critique de constructives laa bëgg a wax. Hmm. xam nga critique constructive mhm. mooy soo xoolee ñiy critiquer dafa am ñetti nit benn nit bi mooy ki mhm. nekk ci milieu bi maîtriser lan mooy cinéma mhm. keneen ki mooy ki nga xam ne xamu ci dara d'accord xamul dara ci li muy wax keneen gi <laughs> keneen ki nag <laughs> mooy ki nga xamante ni da nga def benn mbir moom mu bëgg a def ne yow wala nga raw ko ci métier bi concurrent la d'accord comprendre la donc critique yow da nga koy jël nga teg ko dafa cinéma dafa mel ni métier bi ngeen def le journalisme lépp dafa am norme mhm. cinéma boo koy def da ngay respecter les normes je n'ai pas dit nag mhm. di simmeeku wala du fóonante ci ay téléfilm yoon la du yoon mhm. parce que cinéma soo koy def muy théâtre ak lu mu mënta doon da nga koy méngaleeg suñu aada ak sunu cosaan da nga koy méngaleeg suñu réalité culturelle ñun suñu culture yow mii xaw am nga jaram déet am nga jabar wala hmm. amoo jabar <laughs> hmm. mais doo gis ku yor gelam taxaw hmm. ci mbedd di fóonante ak loo bëgganteeg sa gel tey jii xam nga amoo amoo sañ-sañu taxaw ci mbedd bi di fóonanteeg sa gel xam nga amul loolu moo tax du yoon ñu koy joué ñu nit d'accord mais tamit am na ñeneen ñu koy joué waaw ñu koy joué fan lañ ko joué ah ci biir néeg waaw ci biir néeg waaw su fekkee cinéma dañ la li xew ci mbedd bi la li xew ci kër gi li xew ci salle bi li xew ci néeg bi soo koy joué da def mm-hmm. ce qu'on appelle la simul mm-hmm. mais am na yoo xamante ni bokkul ak suñuy réalité culturelle pourquoi parce que sooy mm-hmm. def benn mbir ba jeune bi jeune yëpp dem wuti ko da nga fay jaare pour éduquer d'accord da nga fay jaare pour éduquer am na benn sëriñ bu baax bëgguma tudd turam un jour dañ ma doon nettali ñu ne sëriñ bi dafa jékki-jékki dugg ci benn baax Mhm. am ku ko gis te ni eh dëkkati sëriñ bi day dugg baar baar boobu day dem ba mujj gi ña fay fréquenté xàmmee ko moom mu fay fréquenté di fa fréquenté ba mujj gi su musiciens yi dóoree ba pare mu ñaan benn 30 minutes jël micro bi xaw leen a waar tuuti jékki-jékki baar ba finalement gars yi tuub bekk ay taalibe mu transformé baar bi def ko daara loolu la ci jublu woon mhm. ñun xamuñu euh, dénoncer et promouvoir d'accord ñun dañuy dénoncer les faits de société. Mm-hmm. mais quand tu dénonces un fait de société. Mm-hmm. ci wàllu cinéma. Mm-hmm. c'est comme si tu fais la promotion de cette chose-là. alors que foofu noonu du ñu xool finalité bi. d'accord dafa mel ni bu njëkk bu ñu daan seetaan ay film yi dañ naan euh, chef de bande bi fin lay dee. cooki fin cooki fin lay dee waaw. <laughs> léegi bi bu commencement film bi da nga koy gis muy def lu bon di rey ay nit. di dóor ay dil comprendre la. mais xoolal fa muy mujje muy cooki fin bi day dee. Mm, day dee d'accord dee boobu muy dee mooy kon li mu doon def. Mm-hmm. baaxul baaxul quand on montre une jeune fii ci benn film téléfilm muy càggatu. wala mm-hmm. muy wax yenn yi wala mu am jëkkër am far. et mm-hmm. cetera c'est comme si da nga naan xale yi seetaan def leen lii lii moo baax non nañu xool kooku ñuy wane ci film bi. muy interpréter rôle boobu. fan lay mujjee lay mujjee d'accord foofu muy mujjee mooy leçon ba. mais gars yi du ñu du ñu bàyyi affaire bi jeex quoi dañuy ah. jékki benn affaire. Ah, kon kon ah, kon bu ñu déggee say wax mu nga ñëw commencé seetaan mais tamit ñoom seen. mujj lañuy nañu xool fin bi. fin bi fin bi. <laughs> ok moo gën mu jëntal gi la. d' accord fa muy mujjee moo baaxul te loolay leçon bi. d' pour dire aux jeune kii li muy def. Mm-hmm. xool leen bu baax fa muy mujjee. fa muy mujjee léegi fa muy mujjee bu baaxul mooy yéen jeunes yi doon seetaan li fexe leen bu leen def lii. d' accord waaw. léegi li ñu def rek jox la nga tàggatoog. waaw di di remercier ñi dakarnet.com euh, di leen di wax ni xëy na wax ji bu bu jubee rek ci yàlla la bu dëngee nag ci man la di jéggalu bu baax a baax euh, incité wu ma nag kenn muy def na ko sudul noonu nañ jàpp ni le cinéma sénégalais avance et que il est temps que vraiment gars yi di encourager suñu maison de production yi nekk Sénégal. di encourager également les acteurs et actrices parce que ñi ngi def liggéey bu am solo tey jii ñi ngi ci ñi ngi ci vingt-septième édition FESPACO c'est la première fois festival cinéma Afrique am 17 films sénégalais yoo xam ne dañ ko fay dawal ce qui veut dire que téléfilm yi ñuy def moo révolutionné suñu cinéma kon c'est à encourager bu ñu bu ñu bu ñu jàpp gars yi di leen critiquer rek ba ñu décourager lu ñu def le cinéma c'est une industrie qui crée de l'emploi il faut vraiment les encourager di féliciter également lauréat yi am prix yëpp FESPACO bi di remercier également euh, le comité d'organisation de ce FESPACO parce que gis nañ Alain Gomis à l'image de Sembène Ousmane léegi dafa nañ leen fa ngan di statue à Ouagadougou te vraiment loolu c'est pour rendre hommage au cinéastes sénégalais kon maa ngi leen di remercier bu baax di leen wax encourageons les les acteurs encourageons les les maisons de production merci waa mbokk internet euh, Dakar Net te euh, tey yaakaar naa leen andiloon neex la yi euh, Sarr Lopez tey ñëw nañ seet si ko waxtaan ak moom moom aussi tamit mu wax loo xam ne tey jii képp koo xam ne rek nit nga boo ko dégloo di nga xam ne kii lu mu wax nii nii am na fu mu ko teg noonu la def dig daje ak keneen rek incha allah di gërëm sama cameraman bi di Mbaye jaajëf. ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor les minutes de l'info